man sànnani qalaa qadiim ak si leen gaaw ci troisième automobile chez Serigne Mamour Mbacké waa kër Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw troisième automobile ñoom nag dañuy def vente de voiture ah kon nag yow mi nga xamante ne da nga doon jaaxle fan laay jëndee oto nga nekk ci dëkk bi boobu ba léegi di wër foo jëndee oto dawal gaaw seeti waa troisième automobile chez Serigne Mamour Mbacké waa kër Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam maa la wax soo fa duggee seen parking doo jaaxle benn yoon ndax oto boo bëgg ma nga fa dama ni oto boo bëgg moo nga fa moo xam voiture de luxe wala oto boo mënti bëgg rek dawal gaaw seeti waa troisième automobile ñoom nag ñu ngi nekkee foofu ca Mermoz Polytechnique nekk ca boru école IAM waaw waaw troisième automobile ay oto yu wóor ànd ak seen ay kayit yu leer yoo xamante ne buñ la ko jaayee dañu lay garanti ay papier yu leer nañ ah kon nag daw leen seeti waa troisième automobile chez Serigne Mamor Mbacke marqué waa kër Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam troisième automobile ñu ngi nekk fi nga xamante ni moo di Mermoz Polytechnique nekk ca booru école IAM seen numéro téléphone 77 644 68 60 wala 77 575 69 12 ah waa troisième automobile seeni oto rek xoolal mi yi xeetu oto yu doy waar xoolal ma yi xeetu voiture de luxe kon na gaaw leen a gaaw ku yéex ñàkk troisième automobile chez Serigne Mamor Mbacke waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii la oto yu baax yi nekk.